asalaamaaleykum mbokk yi teel a gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci Shaaban muy weeru baraxlu ci atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak benn ci weeru mars ci atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñett fukki fan ak juróom-ñett bokkul ci lim bu rafet na kon tey ci gaaw bi rafet na gaaw bu nekk nag li ñu ci taamu mooy ku ca watu li ñu ciy tere tere wattandiku mooy ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanu bis bi yow sunu boroom yal na nga nu defal tuyaaba àddina ak àllaaxira yàlla na nga nu musal ci mbugalum sawara rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azaba annar rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azaba annar xadisu bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sama xeet wala nit ñi kon ma digal leen ñuy soccu waxtu julli wu ne xadis bi buxaar yi ak muslim nettali nañu ko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة رواه بخاري ومسلم waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi six heures de juróom benn waxtu yu tegal ñaari simili tisbaar treize heures quarante benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak ñeent takkusaan seize heures quarante ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak ñeent timis dix neuf heures dix neuf juróom ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom ñeent gee vingt